wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatanaa wa ilayhi nushur ginnaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala nu ngi julli ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam réew mi fm 97.5 dellusiwaat nañu beneen yoon ak suñu mbokk yi ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé mbokk yi xam ngeen ne keroog buñ doon taxawundi ak yenn suñu waxtaan yu jiitu ñu ngi yemoon ak yéen ci fi nga xamante ne mooy yërmande ba borom bi subhaanahu wa ta'ala yenkeewal suñu yonentu bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam yërmande jooju yàlla suñu boroom subhaanahu wa ta'ala yenkeewal suñu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fekk ne bi tabaraka wa ta'ala mun ko faqee ko ci yërmandeem moom yàlla ba tax na mu ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónnewuma la ci sama mbindaafoo ni lu dut nga nekkal leen yërmande ci seeni lépp foofu lañu ñu taxawoon démb waaye saa ne duñu deñ di leen fàttali ne boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah bokk na ci ndénkaane yu mucc ayib yamu joxe xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ndénkaane yooyu mooy daf ne ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama dahaba yawmun dahaba baaduk mbokk yi boroom xam-xam su mag ki ñu naan xasanul basri yërëm moo laayee biir askan wi moo baaxee askan bi laayee biir bu toll ni nee na yow doomu aadama bi innama anta ayyamun na nga xam ne lala fi taxa nekk lala fi a bàyyi du dara lu dul fan yi nga nekk di ko dund fan yooyu nga nekk di ko dund mooy fan yala fi bàyyi mooy bés yala fi a nekk ba tax na na nga bàyyi sa xel ne kullama dahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na la denc sa dund am na bés boobu la yóbbaale ci sa dund bi te dootul ñëw te dootul delsiwaat ñii la kiram ridwanullahi alayhim yar ci seeni keppaar ñu doon ay jaamu yàlla ñu baax ci seeni jamono ba tax na xam-xam yaleen yàlla dénk sell na mucc na ayib jekk na moo tax saa su ne lañuy laaye biir askan wi day dëppoog aya alquraan wala njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na tey ñu bëgg fas yéene jokku waxtaan ba ñu waxtaanee woon beneen bunt bi nga xamante ne mooy xifzul lisaan te gis nañu jamono ji waxukaay ba ñu naan làmmeñ nit ñi dañ kaa boyal nit ñi amaluñu ko frontière la waay wax la neex waay yëkkati ci kàddu ba xam noonu la pencum jullit ñi war a mel wala déet tontu bi kenn ku nekk war nga kaa war a mën a amalal sa bopp waaye suñu réew ba ñu nekk yàlla atte fi ñu fi dund yàlla atte ñuy dund ci suñu réew mi senegal Sénégal askanu Sénégal boobu nag ñoo fa war a war a mën a amee xerewlu déglu ak résultat bu toll ni keneen ku ñoom waruñu ko fa amee ndax gis ngeen waxtu yu ñu nekk nii jamono yi ñu nekk nii lay nekk di xew bu ñu ne jumtukaay bi ñu naan làmmiñ moo ko waral kon nañu xool ana lañuy defaraat be làmmiñ woowu waral li ñu nekk di ko dund ba yoon di topp ay jëmm ba nëbu jent di leen fay fekk la ko waral bu ñu xamee la ko waral ba noppi ñu doog a andi lañu yàlla yenkeewal ci alquraanul karim ne jullit nii la war a waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddali ko ci ay ahadis yu wér yu wóor su ko defee kenn ku nekk ci ñun war a jëfandikoo la nga xamante ne mooy lakka yàlla dénk mu doon cër ba ñu naan lisaan di làmmiñ moo ne du ne lu neex waaye wax waaye moo ne du lu neex waaye yëkkati ci kàddu moo waral léeg-léeg nga dégg ñenn ñu ne am na ñoo xamante ne dañ leen war a utal salaire ngir ñu di leen fay weer wu ne ngir dañu war a noppi jar nañu fay ñenn ñi weer wu ne moo ne lu tax ñu di leen di fay mooy ñu noppi ñuy bañ wax waaye jar na tamit ñu segg xool setantal ñoo xamante ne jar na weer wu ne ñu di leen fay ngir ñuy wax ñaar yooyu ñaari jëmm yooyu ñu tudd nii ki jar ñu fay ko ngir mu noppi ak ki jar ñu fay ko ngir mu wax moo ne de benn jumtuwaay la ñu yore te mooy làmmiñ kiy yàq ci làmmiñ jooju lay waxe waay kiy defar tamit ci làmmiñ woowu lay waxe waaye ak lu doon ci ñaari jëmm yooyu nañ leen bokk xool aaya ba nekk suratul buur bi tabaaraka wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa ngir xeeti xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam war see war a mën a bénéficier wu war see mën a njariñu war a jël aaya bi di ko niitoo seen kanam ñu di ko tegtaloo jamono ju ñu nekk di wax ak lu ñu munti wax jamono joo nekk di wax moo xam yàq nga fas yéenee wax ci sa làmmiñ ngalla waay jëlal aaya bi teg ko sa kanam bàyyi xel la aaya bi di wundu bàyyil xel la aaya bi di tegtal bàyyil xel la aaya bi di joxoñ ba tax na bu dee bàyyi nga xel la aaya bi di firi lépp lu nga mën na yëkkati ci sa kàddu dinga xam noo koy tërale bu dee dinga ko woddu dinga xam bu dee doo ko woddu dinga xam kàddu gi danga kay simmi futti ko jox ko nit ñi walla danga kay woddu jekkal ko jox ko nit ñi bu dee bàyyi nga xel aaya ba nekk ci suratul qaaf di nga mën a xam aaya bi nga bëgg wax bi nga bëgg jëmale ci nit ñi bu dee yàq der la bu dee tuumaal la bu dee diffamation la bu dee jëw la bu dee wax bu wax wut la boo jëlee aaya bi def ko référence teg ko sa kanam dinga bàyyi xel kàddu bi nga nar a génnee sa gémmiñ lu mu war a doon waaye noonu lañuy xoolee weneen pegg ba beneen côté bi noonu lañ koy bàyyee xel bu dee da ngay dem bay wax bu dee bàyyi nga xel aaya bi bu dee sóoraale nga aaya bi su ko defee dinga xam la ngay wax ci lu yiw nu muy demee noo koy waxee kon nañ leen bokk xerewlu sóobu ci alquraanul karim di téere borom bi subhaanahu wa mu wàcceel ñu ko ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa ngir mu ñoŋal ñu suñu dunduyin yañuy dund fii ci àddina mbokk yi yan na nekk ci yéen ak seeni njaboot buur bi tabaraka wa taala ma yankeewal alquraan ngir jullit bi war ko mën a jëfandikoo moo lay baaxee ci aaya bi ci suratul qaaf buur bi tabaraka wa taala nee na maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid boo demee xool tafsirul muyassar mu ne ay maa yalfazu min qawlin fa yatakallamu bihi illa ladayhi malakun raqib qawluhu wa yaktubuhu wa huwa malikun xaadir muaadu li dalika mbokk aaya bi borom bi tabaraka wa taala mooy joxe avertissement doomu aadama bi mu ne ko maa yalfadu min qawlin amul benn baat buy jóge ko ci gémmiñu doomu aadama bi illaa ladayhi raqibun atit lu dut baat boobu dafa am malaaka bu ñu naan raqib moo koy wottu wottuwin bi nga xamante ne la ko tax a jóg xam na ko fu muy jëm xam na ko yéene ba tax a génnee kàddu googu xam na ko kàddu gi bu day defar malaaka bi xam na ko bu dee kàddu gi day yàq malaaka bi xam na ko kon bu dee yaa ngi am na mbindaafoon ba ma yàlla boolel luy liggéeyam ci sama jëmm ji du lenn lu dul di enregistré di bind di sàmm di wottu kàddu yamay may sama gémmiñ bu fekkente ne yaa ngi jëmm jooju bu dee yaa ngi sóoraale mbindaafoon jooju wallahi doo génne sa biir gémmiñ kàddu nga xamante ne dañ la ciy toppee bàkkaar way ñàkk xam ñàkk bàyyi xel settantal alqur'an ñàkk dégg maana alqur'an suñu noon bu mag ba ñu nekkal ci dund bi di seytaan bokk na ci luy jax-jaxal doomu aadama bi ba mu di la waxloo la tax yet dal sa kaw mais ànd ak loolu yëpp borom bi ne bu ngeen tuubee bu ngeen ma jéggaloo ma jéggal bu ngeen rëccoo ci nekkin boobu ngeen nekkee walla kàddu yooyu ngeen génnee seen gémmiñ ngeen tuub bañ delluwaat ma daal di leen jéggal moo lii mooy la aaya bi di tënk lii mooy la aaya bi di firi ci tënk borom bi nañu maa yalfazu min qawlin amul benn baat amul benn arf ba doomu aadama bi di génnee ci gémmiñam làmmiñam bi di ko tuddu lu am na mbindaafoon ba ne yàlla ne ko nang ma kontrole lii sama jaam di wax moo tax aaya bi ne illaa ladayhi raqibun atid raqib sarbiisu wenn malaaka la ba yàlla booleek doomu aadama kooku moo koy wattu ci lépp lu muy wax ci lépp lu muy wax bi nga ganisee àddina bi nga tàmbalee di wax ay wax yu kenn xamul ba keroog nga nekk di wax la nit ñi di xam ba keroog ngay sàngoo suuf diggante boobu lépp li génn sa gémmiñ xamal ne am na malaaka bu koy saytu am na malaaka bu koy contrôler am na malaaka boo xamante ne mooy ci koy bind lii képp ku koy bàyyi xel dinga nga bëgg malaaka bi keroog buy rendre compte yàlla ne ko sa jaam bi durant lu mu dund lii la doon wax waaye yàlla nekk la borom bi di gërëm mu doon lu mu sopp imaginel malaaka bi di seede say njàngum alquran ya nga doon jàng sa say gémmiñ allahu akbar mu ne yàlla kii gémmiñam bi dee da si doon tudd say tur yu màgg yi ci moy jëmm joo xamante ne saa yu mu yeewoo dalay sant di ñaan nga defal ko bés bi mu doon bés buy neex ci moom kii moo doon wax jamono ju mu yeewoo ci nelaw kàddu ju njëkk yi muy njëkk wax mooy alhamdulillahi ledi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur kii noonu la lay sante ndax yaa ko xéewalal bu neex boobu ñu naan nelaw mu def ko ab diir nga delloo ko ruuxam ba mu yeewoo lii la la nekkee woon di sant waaye jëmm ji kii moo doon doxak tànkam cër bink nga xéwalale mu di xuusi lëndëm muy dem ci jàkka ja kii moo doon teela dem ci jàkka ja waxtu yi fajar mooy waxtu wi ñu nekk ni kii moo doon toog ci jàkka ja ba keroog ñu nodd asalaatu xayrun min an nawm mu jóg julli ñaari rakkay fajar mu toog tuuti mu daldi julli suba ak mbooloo waaye jëmm ji mooy jëmm joo xamante ne jamono yi ñu julee fajar kii moo doon jël kursam di tudd subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar kii mooy jëmm joo xamante ne saa yu mu julee fajar da doon toog ci jàkk ja ubbi sa téere bu mag bi di alquraanul karim lépp lu ci jàppandalal ci moom mu di ko nab nabi ba keroog jant bi di fenk waaye kii mooy jëmma joo xamante ne képp ku mu romb ci yoon wi dina la nuyu nuyu islaam mu ne la assalaamu aleykum wa rahmatullah waaye kii mooy jëmma joo xamante ne saa yu mu séenee saa yu mu gisee walla saa yu bëtam dalee ci lu waru lu xool day tudd sa sellaange ci muy jëmm joo xamante ne saa yu mu nekkee di dox ba mu gis lu mu warut xool ci tiitaange ak mbettel day tudd sa sellaange danan subhaanallah waaye kii mooy jëmm joo xamante ne saa yu mu gisee lu ko yéem day tudd sa màggaay danaan allahu akbar waaye kii mooy jëmma joo xamante ne saa yu mu gisee lu ko tiital wala lu ko jaaxal day jël loolu mu gis ak jëmmam delloo ko ci sa nguur delloo ko ci sa moomel kii moy jëmm joo xamante ne saa yu mu nekkee di dox bu faxastaloo danaan laa hawla wala quwwata illa billah amul wenn pexe bu fi nekk amul wenn kattan ba fi nekk di dukkat ci kaw suuf si lu dul pexum yàlla ak kattanu borom waaye kii mooy jëmm joo xamante ne saa yu mu wéetee yorul téere bu muy jàng yorul kurus bu muy tocca toccaaral waaye sañ naa jël baaraam jànk bindal sañ naa jël baaraam ya nekk ci loxoom muy commencé di naan astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha wallahu akbar juróomi baati moom lay mesurer juróomi baaram ya nekk ci loxo ndeyjooram bu jeexee mu baamu ko bu jeexee mu répété ko saa yu mu nekkee di dox yorul téere alquran ya muy jàng ndax bay na ko ci kër gi yorul kurus ci moment ba mu nekkee waaye sañ naa jël loxoom baaraam yànk xéewalal te nga bind ko mu nekk ci loxoom muy sàbbal sa tur di sàkku njégal fa yow waaye di la sant ak di la màggal mbokk yi lii bu ko malaaka seede ci sa jëmm ji mucc nga mucc nga réussite nga texe nga am nañu yaakaar ci jëmm jooju ndax yooyu ngay def baat yooyu ngay tudd mu ngi bàyyeekoo ci sa gémmiñ te malaaka wala malaaka bu la yàlla booleel lépp loo génnee ci sa gémmiñ moom lay wattu moom lay enregistré te moom lay bind bu dee tàmmal nga sa bopp tënk nga sa bopp ci liñ la wax nii malaaka bi keroog bés pinc bu yebbee lépp lu mu ci sa gémmiñ comme la doon génne ci ay kàddu bu dee lii ñu kon mucc nga texe nga moo tax aaya bi firi ba nekk ci suuf nga dégg mu ne la ay maa fasu min qawlin loolu mooy bépp baat bi nga xamante ni doomu aadama bi mu ngi koy tudd fa bi bihi mu di ko waxe illaa ladayhi malakun raqib maana aaya bi ne loolul am na malaaka bi nga xamante ne moo koy saytu moo tax mu ne illaa ladayhi malakun yuraqibu qawluhu ludul am na malaaka bi nga xamante ne mooy saytu wax jooju doomu aadama bi di génne ci gémmiñam wa yaktubuhu mu di ko bindi tamit wa huwa moom malaaka boobu malikun mooy malaaka boo xamante ne xaadirun maad daalik mooy malaaka bay teew jamono ba muy wax jamono ba muy génne kàddu yooyu ci gémmiñam malaaka boobu mu ngi teew ànd moom du doon malaaka woo xamante ne danaan keroog bu doon wax kàddu gi fekkewu ma ko fekk ne ma soxla sama bopp falaa nekkoon waaye du wax tamit keroog bum mu doon wax kàddu gi daf maa réeroon gisuma ko du wax keroog bu wax kàddu gi daa nëbbati woon xaw ma fu mu ne déedéet mu ne wa huwa malikun xaadirun maahu li daalik kooku mooy malaaka joo xamante ne day ànd moom saa su mu ngi ànd jëmm jooju waxtu bu ne mu ngi ànd jëmm jooju fekk jëmm jooju mu ngi dund malaaka baa ngi ànd moom du ko bàyyi virgule du ko sore centimètre mu ngi nekk ak yow ay na maa kunt foo munti ne foo munti malaaka baa ngi nekk ak yow say noppi moom du ko bind ndax yàlla lu mu ko gàll ngir mu contrôler ko ci yow mooy kàddu yi ngay génnee say gémmiñ allahu akbar kon fexeel malaaka bi bu mu ne kii mooy kii wax nit ñi diffamation fexeel malaaka bi bañ a wax kii mooy jëw nit ñi fexeel malaaka bi bu mu wax ne kii mooy kii tuumal nit ñi ak gémmiñam yii bu dee malaaka bi waxu ko bu dee nekkoo ci anam yii malaaka bi du wax lii anam bi nga nekkee ci noonu la lay seddee bu la malaaka bi di seede keroog bis pénc anam yi nga booyalee sa làmmiñ bu dee danga jël sa làmmiñ di si tudd yàlla di si jàng alquraan boole ko noppi li jara wax nga wax boo ci paree ne pat doolu la malaaka bi di seede kanta boo jëlee sa jumtuwaay boobu ñu naan làmmiñ nga boyal ko di wax ci deru nit ñi di tuumal nit ñi di saaga nit ñi di xas nit ñi jël sa loxo teg ko sa micro téléphone amuloo looy wax lu dut luy jalgati àqu nit ñi di salfaañe àqu nit ñi loolu nga jël mu doon sa métier kerok bés pénc bu la malaaka bi seedee bu malaaka bi taxawee mu nekk témoin mu nekk benn témoin bi nga xamante ni dalay témoin ci kanamu yàlla si ngay rëccu nekkin ba ngi nekkee woon ci àddina si kon ñu ngi ñaan suñu bopp ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla boole te ñuy dégg lépp lu jib ci kàddu mu doon lu rafet yàlla ñu yàlla baaxe ñu di ko jëfee yàlla ñu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin ñuy ñaax suñu bopp di ñaax mboolem ni ñuy topp ci waxtaanu fajar ci waxtu bi ci réew mi fm 97.5 yàlla ñu yàlla déggaloo aaya alquran ba nekk ci suratul qaaf borom bi ne maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn baat bu doomu aadama bi di yëkkati ci gémmiñam di ko wax lu dut am na malaaka bu koy saytu contrôler ko xool ba xam wax bi day defar wala day yàq bu day defar falaka alhamdu wal minna bu dee day yàq nanga nga jéggalu sa bàkkaar yi nga bàkkaar ci sa làmmiñ yàlla jéggal la ndax mooy rabbul gafurun rahim mooy boroom yërmande koor ba mag bi te mooy boroom yërmande koor bi nga xamante ni yërmandeem dajal na fu ne mbokk yi waxtaan wi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi fas yéene jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yaxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umurina allahuma ixfad bilaadina min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alcadim wa nafacani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasmacuun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu